moi, je ne fais jamais de déclaration. Peut-être, chef. Non, il n'y a pas de déclaration. Euh, C'est une visite de courtoisie dans le cadre des préparatifs de la Ziara que organise le marabout. On était venu tout simplement vraiment saluer le marabout et puis euh, nous ressourcer comme on, on, le fait depuis quelque temps. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, très disponible, et qui éprouvent une grande affection envers nous. Et connaissant cela, on était obligé de venir lui témoigner toute cette reconnaissance. C'est tout simplement ça. waaw euh, gannaaw buñu santé sante julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam soma ma Khalifa Sall visitam bi visitu lan la dama lay wax ne visitu diggante jullit ak jullit la euh, ndax dafa nekkoon ci ay jafe-jafe jafe-jafe yi mu nekkoon ñëpp macha allah mu metti lool yàlla génnee ko mu dem ci kër kilifa diine yëpp ziyaar leen ñaan leen ñaan ñu nit booba man ak sama waajur bu tedd bi xalifa bi Thierno Mouhamadul Bachir ñoo ngi nekk euh, États-Unis mu bëggoon fi ñëw nag ñu ne dañoo tukki euh, bi mu xamee ne ñëw naa nag euh, mu ne kon il faut mu ñëw comme ni mu def ci kër kilifa diine yi yëpp euh, seet si ñu comme que ñaanoon nañu mu feddali wëllëre wi loolu moo ko indi dajek tamit mu ngi xam ne ziyaar bi may def fii di ko defal sama waajur Thierno Mouhamadul Bachir Euh, yegsi na mu ñëwaale tamit di laajtewaale parce que nee na dañ cee bëgg taxaw taxawaay bu am solo taxawaay bu boo xamante ne alhamdulilah àdduna bi yëpp dinañ ci kontaan loolu moo ko indi woon wax dëgg yàlla euh, lu baax rek daal moo ko indi waaw mën naa wax ne sax waxu politique sax waxu ko fi waaw waxu diggante jullit ak jullit la fi wax waaw mu nekk nag nit ku baax. koo xamante ne tey euh, mën naa wax ne tey mooy sama premier toog ak moom waaye naw naa ko ndax euh, jikko bu rafet ndax euh, nit jikko la te li ma gis ci moom jikko bi rafet na lool wax dëgg yàlla kàddoom tamit rafet na